86 personnes ñoo ko wuyu daa mujj sonn wax yàlla ne ko alagal xeet wi yàlla alag ñëpp ñu dugg ci biir suuf si sëñ Tuubaa xanaa lii mat na 86 ci ñëpp moom la ñu gëm ba pare 33 ans la dund yoo 33 ans yoo xam ne ci ay métit nga ko nekk 40 ans yi nga am jàmm tuuti sax ca 40 ans yi jàmm li muy bari bari ñàkk nga sa waajur wu jigéen bi nga amee fukk at ak ñaar rakk sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay bi bi muy toll ci fer la ko sa waajur ñàkk muy soxna jaara sa sa waajur ñu mën koo jëlee fii yóbbu ko ba poroxaan jëlee la xuru mbàkke yóbbu la poroxaan nga ànd ak di ko muñ dem poroxaan faatu fa ñu denc la fa bàyyi la fa dellu kajoor kon sëñ tubaa mosul dund bànneex waaye bànneex la ko jàppe parce que sëñ tubaa ne na man du ma jàmbat moo tax boo gisee lu ma def mu doon bànneex ci man du ma jàmbat yàlla te ñoon ku ci ñàkk xarab man du jàmbat moo tax mu bari teraanga wax na ko sax ni yàlla dafa maa reetaan loo add xaqte nii fala akkunu bàkk yaa moo tax duma jooy dafa am ñaari wàllu yi daje kenn ki ni moroom ji ana ana seen waa dëkk mu ne ko suñu waa dëkk ñoo ngi fay sant bu ñu yàlla joxee bu ñu xañee ñu muñ mu ne ko ak ah, yéen kon yéen ak suñu xaj yi dëkk yaa tolloo martaba xajee de bu ñu lekkee lu suur yëngeel seen i genn bu ñu ko defu toog muñ bu gisee sëñ Tuubaa raw leen nag mooy imagine moo am yow ku toog ku toog weeru yàlla euro euro cent franc ba pare nga ci sant yàlla ci xañ gi mu la ko xañ mooy wa in manaxta faridan wa sabru yaa rabbi in axtatani ba ma joxee yàlla dama naa la fa sukkuru jërëjëf ci jox gi nga ma jox bàyyi ngi ñëpp jox ma bu lay neexoon doo ma jox wa in manaxta yàlla xañ ma ma ne ko gërëm naa la ci xañ gi parce que nee bi may xañ daa wax malaaka mi xañal sëñ Tuubaa nee loolu tax mu neex ma tudd gi ma tudd amul ku mu nural ci ak mën a muñ ak ak mbaax mu do mu bokk fu baax nag parce que yàlla dalay programme ci giir gu ñuy wax goñ jox la sëñ Tuubaa bokk sëñ Xaadim sëñ Mourou Moustapha mii borom kër gi moog sëñ Baara ay néegi seey lañu ak sëñ laa góor yàlla sëñ Saliou Fat Jaxate sëñ Blaat sëñ Soyeb ay awel lañu seen maam yaa nga dëkk Mbakol boroom daaru mu teg maam Sarañ Fall ay jaafuñ loonu ñoo bokk sëñ Fallou Boussa ab jax réew la maam maaram seen maam ab darobe la sëñ Mor Sali ab siin la sëñ Ibrahima Mbacke si bilaay borom dër bi ay dawal xaaj la seen maam yaa nga dëkk gànnaar sëñ Sidim si laat ab teegeej la ak sëñ ak sëñ Moussa Nawel sëñ Mbay Jaxate néegu wëlig la bokk sëñ Masamba Mbàkke ab gomaay la ñooñu nag sëñ Moussa Ka da leen tënk ci wenn way nee na foo ci mën a bokk lu mu ris ris bokk ci sëñ Tuubaa doon talibe ma ko gën a wóor wéet géñ baate ñegub giig daroo beeki néegi say du te wacc sa askan te dem Mbàkke mbaa Tuubaa ndax moo gën a wóor nee na fa mën a juddoo nag fii gën a baax juddu pir meloo mbakol soful doomi jaara mii ndax seen teeñ ñu dara amal sëriñ Tuubaa muy dammel yaa yi sëñ Tuubaa dara risut moom bala ngaa xam dara réussite fu moom ku toll ni sëñ tafsir bu bu si la fees dell ñëw ci yow nga ne ko dañ lay fecc li sëñ am sotu loo mook sëñ ñoo bokk ndey ak Mor Isa doomi ak sëñ Ibrahima loo ak sëñ juróom lanu ak sëñ Mudlo Isa sëñ Masamba ay sëriñam sëñ Tuubaa ko seexal waaye sëñ Masamba la ko booleel dina bokk ndey te bi muy faat daawoo ay taalibi ay ay rakkam ñu mbokkal bàyyi ñëpp loo ñu ñëw teew muy leen muy leen fii ma toog tey jii gis naa juróom-ñaari pays yàlla yëpp gis naa fa saw tur amsatuloo xat maata ba pare Sëñ Tuubaa lay ziar àgg ci di yàlla ba noppi Sëñ Tuubaa mooy mos na xibaar ak jébbulam ba wax ni yàlla mi ko moom yàllaa ko ni Bàmbaa moom xanaa personnalité ci wax ak yàlla la yëpp léegi mag ñoo ñu toppoon sëñ Touba nga yaakaar ñoom dañoo ñëw topp ko ci nii rek am na ku ñuy wax sëñ euh, Moustapha Diop kokki borom xam-xam la mi fii ci réew mi dafa wax lu am solo nee na sëñ bu ko ñit bàyyi woon jumaa ji day yaadu fi man dégg nga loolu bu ñëpp bàyyi woon sëñ Touba nee jumaa ji day gën a yaatu ci man waaw moom bu demee day day yaatu day toog normal ndax du ko bàyyi moom ne bu ko ñëpp bàyyi woon du tax bàyyi ko ba pare ba pare boroom xam-xam la bu mag ca nee na nee na nee na suñu tubaab dama ko gëstu ba xam ni dëgg la ma ma ma doog ko bëgg. dëgg la parce que yàlla moo ko muril dëgg yëpp mu jàkkaarloog moom. bay leen àq kas fan laa yu fariqu nii kama kashafta li ahlillahi tibyaana mbindum sëñ tubaa mi daa doy sëkk am mbindam parce que day maanaam mu ngi mel ni sëñ tubaa ni la demal jëndal ma fooy guma bile nga dem ci bitig bi jënd ko borom bitig mën naa tudd Samba wala Demba xamoo fu mu jënd kayit gi mu ñëwee Sëñ Tuubaa téye ko ci loxoom kayit gi mooy gën a kawe jaamu yàlla gaa yi jaamu yàlla yëpp parce que loxoom téye yi mu ko téye moo tax waj alxaraaj tii sama fooy blanc bii ñuy wax xale mii xëre xibadati wa xëri sulla mi boo ko doon yi ba pare sama xasaayit ku ko dul jàng doo am ci jigéen dul xorul xëy nii ndax nee na mooy seenu can raadat xasaayida layhi na fil buhuri bi man yaxudu li biha mu xoor a xoor waaye ijjaxal mi daal yi wa axlaani bi kun maliki busral muqafa wa busra xori kal xiini sama xasaay di mooy seenu can moo tax sama lépp yàlla ak rasulullahi laa ko jëmale kenn toox may bind mallaktoo xat yeddi sini naa wala xidaay wajjaxal ani naa moo tax sama noonu yi fu ñu di jooy bu ngeen di jàng xasaay di mooy rey noonu yi sëñ Tuubaa yi parce que nee na mënuñu koo dégg sama xasaay di sax arrangé wul kàccoor kettaabati kabatatil fujaaraa yoonu yàlla du ma ku yàlla bind wa fi sabilillahi lan lu tax mu ni yàlla ma jox dëgg ma téye ca man lu ma ko bëgg a ñaan dama ko jox door ma ni ñaanal l'islam sama loxo la nekk nga jàpp ne l'islam jàkko yu bari yi ci réew mi moo tax l'islam dund ak adduna bi demal fi ci jumaay Tuubaa yi nga gën a fonk nga xam ne fa la sëñ Tuubaa ne boo fa tegee sa téléphone bu génne doo ko fekk julli ñu ñëwoon julli si ñoo ko sàcc te yàlla wax ne inna salaata fa saay bo munkar julli day tere bon ba pare ñuy julli ana mbaax fu mu nekk nee na xasaayit moo tax lislaam di dund rajawtu inqiyaadul xisbi lillahi waxdahu bi xattil lesi yaxya bi xeyru islaamin loolu nag ab soñ la ci ku nekk ci xasaayit war ngaa xam li nga yor mooy lan xasaayit du ay caaxaan gis nga yàlla 104 téere la wàcce 104 téere yoo xam ne fekk fi sa sa juróom fukki maam 104 téere yi fekku leen fi alxuraan sax yow bi diggante bi mu ñëwee léegi sa junniy maam dox na fi bi mu ñëwee léegi am nga fi junniy maam diggante bi ba pare boo jàngee xasaayit am am yoolu alxuraan am yoolu 104 yàlla wàcc yonent yëpp loolu ku la ko mën a defal ku du sëñ Tuubaa foo foo ko mën a fayee li wàccil karimi kuntu ak kutub boo fii kitaabati atat lil kutub nee na booy jàng xasaayit yaa ngi jàng 104 yëpp am nga seenub yool waaw ndax man ndax man sama xës da gi ñuy wax fulkul ma sonn boo gisee ma bari taraanga moo tax dama ci déyanteeg sama borom ba lépp lu ma bëgg am naa ko moo tax sama mbégte di yokk guddeeg bëccëg naa jiy tuub bi fulkeel mosoni wala yaqul bi bisra kulla ayin su ma bindee sax iblis day daw di jooy fu ne mu dugg fa isam tadaxtul muntaxaali si sabax taf di loxo bakkal lahin wa abax sëñ tubaa iblis nu muy dayoo mu ni comme ni gode di jàppe ngir ragal sama xel yi ma farral lahinu kafira lil xir di ilaa siwaaya bi tardi sama xel ma iblis ñi ma ko de nee na buy daw sax dee kebatu mi ngi mel ni koo gàññe muy kebat naan diw lu ma ko def mooy isa xaramtu aw katabtu xar wala iblu safaroon mahaman taxaw la ma ngay kebatu di wéy ndax gañe gi ma ko gañe moo tax sëñ Tuubaa ku ñu war a bëgg la te warmal ko Cheikh Ibrahima Fall lépp sukaa be ngoone jëy isa jëy fatim penda sa wuru maam say jaay xam nga Cheikh Ibrahima nag bëgg ko ab ab ab ragal du ko bëgg Ah. ab ragal it du ko gëm ndax conséquences yi ci nekk moo bari mooy du julli ca kenn mënu ko génne ci yoonu murid mooy julli ca kenn mënu ko génne ci yoonu murid lim am ci sëñ Tuubaa tam benn seex amu ko 626 seex yi sëñ Tuubaa seexal léeg la nga dégg lim bu bari nag mais boo jëlee téereb sëñ Moussa Ka Matlabul Haajaat yi compté ko par benn par benn 626 personnes la lay jox te sëñ Moussa yu bari fi la ko fekk mhm. léegi nag ñoom sëñ Touba Cheikh Rafal am na ci loo xam ne benn seex amu ko mooy sëñ Touba gërëm la seexal sa juróomi doom benn seex amu ko sëñ Moussa Ka dani Cheikh Moustapha Fall xat xawaa nifaalaa doy nab xalifatu te am na aala Mor Talla Fall Basirou Fall Assane Fall Aliou Fall Ahmadou Abdoulaye sa juróomi doom ñoo xam ñëpp am ngërëmul sëñ Tuubaa ca juróom ñii ma la limal li tax nga xam ne am nañ ngërëmul sëñ Tuubaa kenn ku ci nekk sa waajur bi sëñ Tuubaa jiyee géej dañu ko bàyyi ko jox ko diw ñoom juróom ñii moo tax faaw ñoo ñoom ngërëm moo tax maam Saraane Fall ma nga bokk ca Kajoor bokk ak sëñ Tuubaa maam nit da ko gis teg ko ab doxe dem ci kër gii sax léeg nga dégg koy waxtaan naa maam Serigne Fall ko xam ci àll ba la jóge nangam nangam déedéet maam Serigne Fall mbokkum sëriñ Tuubaa la xame baa yeex waaye ay mbokk ñoo bokk maam sëñ Mbàkke Gay mii bokk sama xarit bi sena ba gay ca jëmooy gay moo meñ sëñ Tuubaa meññ maam Serigne Fall meññ sëñ Mudu Sow ak sëñ Baara fi ne sëñ Mudu Sow ak sëñ Baara bu sëñ Tuubaa nekku doon seen bàyyi sax ñëw bokk maam ak borom Darou Mouhty dafa am ku ñu wax Amarum Ndaam moom Maxtaarum Ndaam Amarum Ndaam moo yoroon awa am ca biraan awa ñoom ñooy maami sëñ Mudu awa Balla ak sëñ Seexu Balla ay geet lañu Maxtaarum Ndaam nag doom ja Demba Binta moo dem jëmooy naanal góor ga ma Samba Gueye mu may ko doomam ju ñuy wax Senaba Gueye Senaba Gueye jur mbërgu Senaba Gueye Balla mbërgu Daam Buri Samba Anta Kan Saliloo Anta Kan sëñ Mor Seylu Sëriñ Tuubaa mbër njugo demba sana bagay rakkam moo meñ si Abdourahmane Lo njugo demba sana bagay mba sàmba soxna Modou fa jama loo sëñ da Abdourahmane Lo njaay demba sana bagay meññ Alaaji Malik ñoom ñoo bokk ñoom ñëpp yàllaay dogaluk mbokk Binta Sey mii seenu jigéen moo meññ boroom daru Muxti Binta Sey Ngoone Touré Maram Xàcc Absa Lawbe Fati Isa borom Daarul Muxti mhm. ala demba sana bagay jaafuñ bi men seen Musaa ak sëñ Baara ala demba sana bagay yàlla ko jokkumba aminta yàlla xarit maam aminta loo sëñ Musaa ak sëñ Baara aram ngay mii seenu jigéen moo jur maam Jaañ ku ma Jaañ soxna Balla seena mu Njaay Cheikh Ibrahima Fall moo tax yàlla lu baax rek lay dajale faw ñu daje ñoom te sëñ Tuubaa fu lu baax nekk da koy jëli bala ngaa xam ne fu lu baax nekk mu jëli ko saa xewar Fatma bu tuubutoon nekk sëñ Tuubaa du am ku defar Tuubaa ci sëñ laat saa xewar Fatma war a doon ak njabootam moo war a doonu sëtam ndax Seydina Umar bun Xataab ab yéefar la woon lislaam moo tax mu tedd sunna ñaari doom muy dund góor ak jigéen te bi mu duggee ci islam mbedd moom jaar ñeent fukki di iblis du fa jaar moo tax ñi mënoon ci cedd gi seen i sëta ci diine bihi tas sa diinul Moustapha isbison saw Seydina Omar bun Xattaab moo tax diine tedd moo tax saa xewar a dafa dem Matar lu ma jëw tubal ko mu dem sancub dëkk tudde ko cil ma xanaa ci lépp lu bon mooy cil ma xam a taawalo a du yàlla sàmm maram xëy ma patar am si la sump ndaak fal si la libaas soxna jën si libaas soxna faat jaxate soxna mariama jaxate Serigne Saliou ak sa ibdu laat mariama jaxate moo tax sëñ Tuubaa fu lu baax nekk ci adduna bi rek da ko jëli xool si yàlla juf làmbaay keroog bi mu ñëwee ni ko damaa bëgg a li nga bëgg yaa ngi mel ni ku bëgg dem ci sébbu bëgg faa taal ci ab ak géej bëgg faa taal sébbu digg géej ab sébbu mënu faa booy de waaye ñëwee nga fu nu ko ma ne Cheikh Aliou Diouf doon ku gore nag doon ku gore ndax sëñ Tuubaa daf ko boole ataaya mook maam Sorayan Fall ni leen yàlla sama borom moo wax naa ne ataaya li ma la wax nag boo demee ci marché sëñ Moussa fekk ko fa dama koy leeral nii rek mais sëñ Moussa Ka ko marché yëpp sëñ ma ataayal leen keroog dafa jël sa muquraas gi sëñ Tuubaa di ataaya mu tàng nar koo lakk sëñ Tuubaa ni ko bàyyil mën naa ko jàppal sama bopp doomi Lat Joor dafa nekkoon muy moor xaar daal ni bàyyi leen ma jàpp ko man doomi Lat Joor ji sawara wi ci man na gën a yay sëñ Tuubaa nii mën naa ko yëpp sama bopp sa Sëriñ Lambaay heure bu ko sëñ Tuubaa xelle day gas ba mu xóot mu suul ko fi suuf ba mu jeex mu tibb ko yóbbu sëñ Tuubaa loo jublu mu ne ko damaa bëgg su ma demee Lambaay mboolem teeni Bawol ya ma def ko fa bu ci ceddo yi naanee ndax dooni murit loolu ak mbaax la moo tax ba mu demee ba mu demee ba mu demee Jolof ñuy julli Sada Talla Sada Talla di ko ba mu wax Sada Talla sax mujj na sëñ Tuubaa seexal na ko sëñ Babacar Thier Gane ko pànk dañu ko dangaa ñàkk fayda ba ma ñëw dama xoolee Sada Talla di ko ba mu wax mu ne ko man ay rakk indi ay rakk ma fi waaw man julli mun naa ko doo taxaw fii ak nga war a taxaw rek mu ni ko ay rakk indiwu ma fi kii ma fi indi nga sëñ Tuubaa ku ne la am maam Sëriñ Fall nag dib gar mi di dàmmeel wax naa la ci giir gi ñu wax jaww ñu la bokk ndax ma jàmbal diwaan faa la ñëwoon mooy ñëwoon Louga fekk fa buur bu fekk fa ñaari seex góor góor ak jigéen wal mi ak walit ndis mi mooy seen maam mooy seen wayjur wal mi nag jigéen la mu jël ko am ca lamante ca foo njógu walit dafa dellu gànnaar ñooñu loo leen sant waaye ay naar la ñu fi ne am ca laman denc fa njóge mi ngay dégg ab laman laman rek amari nga neen sebel doom moo tax mu doon mu doon buur ndax kajoor dañ leen a yilifoon jamono bu nekk rek ñuy dem ñuy ñu dem fas booy tibb ca beeñ ba yóbbu jolof loolu mooy moo mooy seen impôt ñu sonal leen lool mu lijjanti ba ba nit naa xam luy rey buur moom moom ma jëmbal diwaan fal ki ko kii ëwal ki ëwal kii ëwal euh, baayam ni ko xam naa la wax luy rey buur mooy li mu koy ëwale desitu awit gi da nga koy boole li nga koy boole rek def ko mu ñëw ci dëkk ba daani ni buur bi nax ko ni ko sama bàyyi nee na dafa génn pièce cent franc bu bees mu bëgg la ko jox ñu dugg ci biir mu jam ko ah kajoor léegi nag njaam nga dog na mooy amari nga ne sabel maam monsieur Rahim Fall la mu dem denc yuga tàkk am ci ngukaan tàkk ko sàmba tàkk xuraja xuraja denc xuraja kuli am ci daaw demba xuraja kuli daaw demba xuraja kuli moo jaay tubaab bi gi ci Ndakaar maam monsieur Rahim Fall la biram baawa xuraja de yor ndaag machine ndaag machine na mu jur amene sekk ndaag mi dëkk cana ba yaa xam machine naa meññ maam ahmadu roqeya léegi nag loolu li muy riis riis nag ay mbokkam dañ ko bàyyi ni ko dangaa yàkkamti yow boo teewoon ahmadu roqeya fall mi la jur doomi atumaan fall la atumaan fall mel de calaw boo defee ndànk doo doon buur muy leen kii daf maa jaral moo tax ma topp ko ay buur yëkkat yu ma waaye loolu bu Sëñ Tuubaa demee géej la koy lijjanti ndax biñ ko bàyyee dañ ko ne am soxna ci sa ci sa mbokk yi sëñ tubaa dem géej ba ñibbi si keroog ci port autonome bu Dakar bi ñëpp taxaw ci mag mu am 47 ans maam Saraay Fall daf koo boot keroog dañu ko doo laal suuf suñu musaaka ne daf ko ne wàkk boot keroog yóbbu laminance bég nañu keroog mbég moo xam joolee na France mooy fi Macky Sall fana di fanaan keroog bari na coow loolu ñaan dañu président Sénégal am indépendance dañ ko wax foo fu ñu war a def pale mu ni fii sëñ Tuubaa fanaanal moo gën a dal sama xel ku fi nekk kenn du la fu coup d'état la ko def moo day fay parce que sëñ Tuubaa fu mu fanaanoon ak fu mu fanaan ak fu mu fanaan du benn fa fanaan ba ëllëg sa maam Serigne ñu ko may naa la ko dara bëgg ko sëñ Tuubaa ndax réew mi Bàmbaa na kër yoo daa ko bu ko waa sëfi natomaan yéegee génn ko foofu Bàmba daa bëgg foofa waxantuma la ak réew mi xam ne boo génnee fi fekk penc moo xam ne ni lu ñuy teree nga fa Bàmba da ko bëgg sëñ Tuubaa li baax ci réew mi la moom ca du réew mi donc adduna bi nee lu fi baax sama loxo la tege xuyóoru rabbi ilaya su libat wali bi laa taxaru na xaddu jusi bat te man umalu ban dara taxul ci moom lu baax rek la xam moo tax sëñ Tuubaa wóote wul mbooloo ma bëri bëggul yoon yu bari mbooloo bokk bari mbooloo ñu am sa complexe sëñ Tuubaa nit ñi baax la bëgg ñii saf ceeb ñii saf dugub bi mu ñëwee nuyoog sëñ tubaa jox ko loxo sëñ tubaa ne ko Ibra Fall yoo de bi may dem géej yor na ngay soxna mu ne ko waaw Mbàkke ñu sëñ tub ñoo nga fa sëñ tubaa ne ko dellul may leen seen baat boo ñëwee ñu door waxtaan ma ak yow te loolu imaamu Safraani Kamal moo ko waxoon mooy woon ab sëriñ dëgg day bu bëggee defar ab talibe damel ni ko yàqal ndekke du ko bëgg a defaral sëñ tubaa daa tas kër Cheikh Ibra Fall ndekke du ko bëgg a defaral sëñ Moussa Ka da ko junj ci xarnu bi imaamu Sahraani Kamal téeréem boobee Bàmba la lay misaal gis na ni may ëbori jàll xut bu yowoon ci xarnu bi mu dem ni soxna yaa ah, ndigal jib na la sama sëriñ nee na ma yewi leen loolu benn sëriñ ni ma woo soxna yi ni ko nangu noonu faal ñu toog ñetti weer ak nangam seen idda jeex mu ñëwaat sëñ Tuubaa ni ko ana sa aawo ba soxna faat faal wadd ma ko jëlee woon ndar keroog bu ko sëñ Tuubaa gërëmee la dem ndar ñu jox ko ma fa mu ne ko jox ko Issa Dieng la nga def lépp lu ca war muy waajur suñu laay faal nar suñu fàllu faal ma des ca guerre ba soxna Roqaya Fall taawam bu jigéen Cheikh sax am na ci soxna Binta Dieng ana astu silla ma nga fa mu ne ko jox ko saxiir gay ndax sa mbokk nga jox ko soxna dina rafet moo jur Serif Assane ak si mënu Soa Fall daana wax ne Serif Assane tuddeewu ko naar buy jaay xorom ak coggal ka ma ko tudde Badar la ko xamee boo déggee naar buy jaay xorom ak coggal mooy alxuraan ki ko dugal Sénégal am naar la bu tudd Yaxya ibnu Godel daan jóge Mauritanie di ñëw alwaar ca Fuuta di ko jàngal tukkulóor bu ñëw waar jeeb yi mu a mokk alxuraan ci Sénégal ana ana ana Fat Diop Seer ma nga fa mu ni ko jox ko Muudu Fall Fatma sa doom yi bàyyee nga jox ko soxna dee rafet moo jur suñ Aliou Fall Mbaw ak suñ Mortala Fall ana soxna Xadiloo ma nga fa mu ni ko jox ko Baara Sarr sa taalibe ci ku la bëgg la ma dëkk xombal moom nag lu mu ci may naa la ko wax doom yëpp ay Baay Faal la jigéen ñi sax ay Baay Faal leen denc wax ci Sëñ Tuubaa ji lu mu ci am may naa la ko ci ana soxna aw Diop jaxata ma nga fa mu ko jox ko Saliou Fall yéen bokk ndey ak baay moo jur Sëñ Basiru Fall mu maam Soraay Fall léegi soxnaam yëpp jeex nañu ci mag mu am 45 ans ngir sa ndigal lu sëriñ nga toog ay weer amoo soxna kooku gëm na Sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa li mu bëgg fay mooy li ko ay mbokkam wax ni comme da ngaa topp kii na nga leer néeg bi doo fi am doo fi am soxna ndax ay garmi lañu ñun ci sëñ Tuubaa amul maami buur waaye xew boobu ni ko demal kër dameel nga takk fi sox mu dem denc doomi dameel sàmba yaaya moo jur jëri joor ndee la denc doomi saa danki denc doomi mbaar joor siga mbaar joor siga feet gu rëy gi ngay dégg diggante njukke diggante njukkeeg jamati moo ko organisé woon ca la maam Saraane dem ni ko bàyyi leen ko ca topp sëñ Tuubaa tuur sàngara ya mu ànd ak moom jiggal ko doom soxna Fall mbaar Cheikh Fall yor ko am ci soxna Astou Fall jox ko Basiru moo jël sëñ Cheikh Astou mu sëñ Basiru léegi nag Lat Joor faatu ba 1902 ay soxnaam amul am jur gu bare bare bare baa doole yi amul amuñu borom kër sëñ Tuubaa ne ko yaa leen war a yor fab lan la faala penda faala gañ siri jébbal Cheikh Rati garam yee bari fab saa si mbooj ma nga dëkkoon Siin ab galawaar la ak kuma calamaan yi galawaar kenn du lekk alamaan yàlla yàlla def jàmm ah. te dool leen sutura noo ngi jéggulu ñëpp amin amin amin barke sëñ Tuubaa noo ngi siyaar ñëpp di siyaar bu baax a baax sëñ Xaadim Gueye noo ngi lay siyaar bu baax sama sëriñ ngi lay ñaanal baax yàlla defal la jàmm yow sa kër mu fi ñëwee mën naa may la sax sant Gueye tuuti waaye Gueye moom dana war sëñ Mara noo ngi lay siyaar baax a baax seet muy tawfeex ju kenn xamul fu mu